kàddu ñan rek la woon kàddu xool set déen wax ne xool set na xelam taal na itam ñene na ndax mu ngi bii ba mu koy suñ jaaxal na loolu tax gone la gone la waaye ba muy suñ ngeen ñëw taxaw yéen ñii la xelam taal na yi ñu la tey mu ne bu àgg ngeen ñëwaat taxaw fii ci ubbi wóor na ne jàmm na ko si wàllu si baax yàlla nañ ci yàlla kon sëriñ bi sant na bu baax sëriñ bi gërëm ñëpp bu baax yéegoo kàddu yi sëriñ si wax yi wala yéen de ñoom dañuy jaamu yàlla ñoom dañuy liggéey ñoom dañuy jublu aw aw way bu ñu am koo yi yàggu ci nag lay boo mën a yoree sa lay boo waaye ñoom dañuy xam doon nañ ko yéen lay jubaa doon nañ ko seen waajur yi ñoom de moom la ñuy war a jàpp gay yi jumaa gay yi soo léegi gis biir képp koo xam ne nii waa jàpp na te julli si woo boo liggéey kat c'est wàcc na kii ba ñu na ngeen xam ne juma du lu ñuy lu ñuy waye saa boo déggee noonu di julli juróom da nga xam ne bii tey nga mën a julli si daa soxla yow julli ndax kat yàlla képp pare woo ngay taxal waaye portable bi sax wala waaye doo ko jëlee nga dugg yàlla képp pare woo ngay ma yàlla dugg kon nag bu yàlla wootee ne sëriñ bi bu ajuma dégg nga li lay wax. لتقولي تدير دوما لكفر ذاتك الله وصلوا البيع وأبطلوا المنى وصلوا البيع يعني يمكن موتين من يعمل يلا يلا يلا يلا yaa ngi may yëngu te ñuy jàpp kon nag képp ku ci yëngu ndox mi dañu maa jàpp la dafay dafay yóbbu la def boobaa sëñ bi wala dama dafa am loo xam ne damay koy wax ndax gis nga mboolem bi nga xam ne ñu mbubboo ñàkk jàmm yàlla ba ko tax gannaaw sëriñ bi sëriñ si moom wàcc na ñëw yéen kenn ku nekk sa sëriñ nee na dama jàpp naa ne te liggéey tax moom ca la nekk yow man naa bu ko defee danaa ñoo xam ne tànk tànk yi xale ba xam ba xam dañ naan yàlla léegi kat yàlla dina àggale woon ñu toppoon yàlla ak ñu toppoon yonent yi daa daa tàmbali di bokk lay naan ko naan ko yàqul naan ina ataana saadana wa kubaraana fatal woon ak sa yàlla kat suñu fànn lañ toppoon euh, suñu suñu màngi lañ toppoon ñooñu sànq ba ba jàmmuñu yàlla bu boobaa ji yëpp moom ji yëpp moom boo ko waxee jàkka yi ñëw ñëw weesu commencé bii di leen bii toppoo woon ñoom tey dañ la waxoon boo ko toppoon tey jii tey ñu nekk ci àtteel bi kaw yi dafa leen lan lay ko fekkee def yéen na ngeen góorgóorlu bu baax sëñ baa ngi sant ñëpp la sëñ baa ngi gërëm ñëpp sëñ baa ngi ñaan ñëpp kon seen lu buy dafa bëgg ah sëñ Moussa Moussa Sall bi nga xam ne moom njëkkaam bi yii njëkkaam moom ñëpp ci woon njëkkaam lañu ndax dugg yëkkati daal moom sax waaye nga xam ne moom la ñu déglu rek tey moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa kàddu boobu doy na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yoonu ma di wéy ci ndigal moo ko lal moo ko ron moo ko mujj moo ni ci digg tey ginnaaw dañoo wax ne dañu ma saisir damay wax rek di suuf ak asamaan waxoon bañ nii leen fa qaala laha wa lil ard itiya tawan aw karhan bi ñu xamee ni mënta ñàkk ñoom dañ ne atayna taarin noo ngi leen di lu bari di leen siyaar waxtaan wi du mën a gudd ndax li ci ajjuma lépp sëriñ Muntaxa wax na te lay tënku ay waxam mooy taqwallahi taqwallahi nag bu sa nekk ci yàlla ngay kër kër ndax diggante arraja wal xawf noonu la ab jaam di jàppe sunu borom waaye ragal yàlla mooy bàyyi ko xel bàyyi xel yàlla ndax loo bàyyi xel rek say jëfa say nelaw ak say lekk ak sa jàpp ak sa bàyyi lépp sa xel day ne ca loola moo tax bàyyi xel yàlla mooy taqwallah sharia bi itam sëriñ bi wax na ko waaye sunu borom dafa séddale dafa wax na wa laqad aatayna bani israila alkitaba walxukma wannubuata wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala alaalamin wa aataynaahum bayinatin min al amr bayinatin min al amr wax yonent bi nag ne ko yow nag summa jaalnaaka ala shariatin min al amr bayinatin min al amri mooy saahir moo tax tubaab yëpp ko bokk nañu mel li ñuy gis ak li ñuy xam ak lañ koy liggéeyante ñoom ñëpp a ko bokk li ndax bayinatin min al amri chariatin min al amri nag dafa moo tax lislaam bari ay njëriñ kenn ku ne ak ni nga ko dégg sëriñ Tuubaa nag moom bi ñëwee wutul ngirum boppam mboolem téere yi mu liggéey bu ngeen ko seetloo day wax ne diwa ko weesaroon man ma woy jawharu nafis fi aqdi euh, nasril axbar mawaahibul qudus sanusi moo ko def nahju qadaa il xaj bal xaj moo ko defoon masaalikul jinaan daymaan bi moo ko defoon bañ na ko sax ba nee ne fa xaytuma dakartu sa qultu fa min maani qawlihi naqal loola da ko bàyyi ni mu ko fekkoon kon nag Sëriñ Tuubaa buñ ci dee wax moom mayam gi rek ci lañ mën a wax ndax lu mu fi mën a wax fekkoon na fi nit ñi di ko def te taxut ñu am li mu am jàkka yaa ngi ci woon kaamil yaa ngi fi woon lépp a ngi fi woon ñu di ko jàng di ko mokkal di ci am na ñoo xam ne sax dañ daa naafila alxuraan ñaari rakk téerab kaw bi ab rakk téerab suuf bi ab rakk waaye taxul kenn am ci lu jege li sëñ Tuubaa fa mu jaar duñ ko jéem a xam dun ko jéem a roy dañ koy bàyyi suñu bopp sëriñ Tuubaa bi fi bi mu nekkee ak baayam Maamoor Anta Sëli da doon jàng jaxaru nafis bii ma wax Mamour Anta Sali jàngale na ko ci kanam waaye àqi waajur a ko fa bawoon bi mu génnee àddina def ne ku fi jàng bàyyi woon wutal ko la yaay koo xam ne fi ma jëm nga jëm àndalal na kon nag loolooy sëñ Tuuba daa am lu mu xam am lu mu gis am lu ko yàlla woon loolu mooy rahmatullahi te la fadlullahi aleykum wa rahmatuhu dogal nag loolu kenn du jaamu lu yàlla nangu te bu la yàlla toppee du am ko kon Serigne Touba bi mu dikkee sañ-sañ la am boo xam ne sunu borom moo ko ko jox ak may la am boo xam ne borom moo ko ko jox sañ-sañ boobee nag kenn du xam fan ko jëlee may googee faat na te dootu ko amati mi ngi mel na nga ñëw ci këru nit fekk mu am ay teraangaam ci biir këram togg ay ñamam. bérébam ba lépp am fa loola moom dara warul la ci lu dul bàyyi koog sa bopp su fekkee bëgg ngaa jariñu ci ñam waaye soo bëggee xaalaat ci ak togg wala nga sosaat sa mbir loola moom yaa ngi koy tàmbalee ci dem ba ci digg mën bi nga sos ko kër te beru kenn du la fekk kon te tax lu waaye am sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa nag moom dañu ko xoolee yàlla waaye jëppewuñ ko yàlla ndax lu nit dox dox xam ne yàlla amul moroom loolu shirkul jaahiliya yi ñoo daa wutal yàlla moroom dañoo dox waaye ñun weesu na foofu koo ne mooy yàlla la la jëkk kooka ko defaroon koo ne mooy yàlla gannaaw kooka lu ko defaroon kon xam nañ ne sëñ Touba dañ koo xoolee yàlla nun ñii it kenn jàppewuñu sëñ Touba dañ noo xoolee sëñ Touba kon nag waxtaan bi mooy taalibe yi ak nun ñii noonu dañoo xoole sëñ Tuubaa nan fexe ba li ñuy xoole ñu niru ndax carte portele xoole ko borom a tax bu ko niru dañ koy xotti sànni tubaab yi sax carte d'identité bu ma ci fukkee baaxatul ndax du dootu dootu nuru borom kon yàlla nañu sëñ Tuubaa dimbale ñu niru ko ne bëgguñu koo doon ndax kenn du ko doon kenn du ko rey des koy topp bàyyi koog sa bopp yàlla nañu ci dimbali yéen taalibe yi itam te tabbiwaat nañ ci biir loolee ndax rawee nañ leen bokk ci sëñ Tuubaa waaye ay taalibe lañ ngi de yéen nan fexe ba nga xam ne bu ñëwoon sëñ Tuubaa ngi ci néeg bii na nga mel rek noonu day àgg ci moom ci col ak ko fet ak pëste ak ko dëgg waaye boo nee ma defaruwaat yaay nga sa kon nag ak taalibe fi am solo moom la ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa leneen lum mën a doon leneen lum mën a doon dañu wax ne bu àllaaxira maa salakakum fi saqar waxtu wu nañu di ko wax waaye dañoo fàtte ne du caagéey ni ab jaambur a gis waa sawara naan leen maa salakakum fi saqar sunu borom it du caagéey ni mooy wax waa sawara naan leen maa salakakum fi saqar alquran dane illa ashaabal yamin fii jannatin yatasaaluuna anil mujrimina naan leen maa salakakum fi saqara ña ne àjjana ñoo koy wax noonu nag nooy ñooña kon noonu doonunu ñoo xam ne dañ naan maa salakakum fi saqara ñu naan lam naku min al musallina wa lam naku nutimul miskina wa kunna naxuudu ma al xaa'ibina wa kunna nukadibu bi yawmi diin déedéet noonu noo nekk ca àjjana naan waa sawara maa salakakum fi saqara ñun génn nañ ci waxtaan bi dañ tey lam naku min al musallina lenn la ci li leen tax a dem sawar des na leneen walam nakun nut'imul miskin wa kunna naxuudu ma al xaa'idiin wa kunna nukaddibu bi yawmi diin loolu yàlla na ci yàlla musal looloo leen la looloo leen la waaye julli googu sunu borom dal arayta alladi yukaddibu bi diin fa dalika alladi yad'u al yatiim wa laa yaxuddu ala taami al miskiin fa waylun lil musalliin loolu la waaye alladina hum an salatihim saahun booy julli sa genn toq xel dem ci addina waxuma la ñàkk na ba moo la ci fekk fekkal na ku mën a warlu ne dangay julli ba sën man doo xalaat addina amul alladina hum yuraauna booy julli te bëgg ku ne yow mi ku baax na wéyul moo la ciy fekk booy julli te nay wéyul moo la fu ñu ci alquran wa aqimu salata wa anfiqu wala wa atu te danay digle ci alxuraan anfiqu te doo ànd ak dara kon julli aw sàkket la bu amute xer du dem joxe atum taalib bi ay xer la danañu taxaw bu ñu amutu sàkket itam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wasalaam ala abdi amin bokk julli di fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacké mi ngi toog di xalifa Cheikh Mouhamadou di borom kër gi di borom jilaay bi Serigne Cheikh Mbacké ñu ngi leen di nuyu tey jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadou Lamine barakatu Sénégal kul murid Serigne Cheikh Mbacké di ko ñaanal ak mbooloo mu ne ca gannaaw ñoom ñëpp mu Serigne Mouhamadou Lamine Bara yàgg ci wér te di leen xamal ne moom la mu nekkoon démb ak bëri démb rek loolee ca nekk mooy aw ci ndigal di bàyyi te su nekk Serigne Touba mu nekk sa gannaaw boo déggee mu des ko war leen di di la ci nuyoo boobu Serigne Mountakha Mbacké mi toog parce que li ci amat léegi dafa yónnee léegi am nuyoo ab ab ab moom mu am lu ma fàttali damaa mas a yee Serigne Mountakha mu siyaare Serigne Cheikh Mbacké léegi ba noppi ñu àgg ba mu ne ma soo delloo dana ma seen dana seen sama jullee ndax kenn yi ma bëgg a sax sama sama sama laam bi lott na ci kenn kenn yi ma bëgg a sama sama laam bi lott na ci sëñ Mountakha mi doon ma salaama loolu sëñ Cheikh Moutoulee kon bu sëñ Cheikh Moutoulee loolaa léeg-léeg ji yónnee ak kenn ci moom loola kenn ku nekk xam ne ñoom yiw rek lañ ko bëgg ci te sëñ Mountakha mi képp ku doon ku nekk ni ko sëñ Cheikh Moutoulee seetee war nga ko ne seetee ku nekk yoonam mooy war nga ko seetee ndax bis yi mel nii fi mu am ci yoonu murid yi day yëngu yoon gën a mujj yëngu yooyu yëpp dafa ko daan tekk dem doxali waat ba mu sotti mu mel ni foofu mooy biir yoon kon ñun ñëpp ñoo ko amee jugal ñun ñëpp ñoo ko amee lu jëm kon ñu ko sant baax dañ ko ñaan yàlla bu yàlla def am na bu wér sëñ Moustapha Sall mi tam sëriñ bi xam ne ne ñu ko sant baax na ak taxawaayam ci defaru sëñ Moustapha li ko sëñ Moustapha yow la amee gis na sëriñ Sall ne léegi nag di sant mbooloo mi lépp teg ko jiital si Abdou mi nga xam ne moo nekk ci kanam mbooloo mi tam te mu wax ni ngeen fàttali ko Serigne Moustapha Abdou Aziz mi nga xam ne moo la doon moo la doon jotaay bi nekkoon jàmbaar islam boo xam ne diggante bi fi nekk bëggul dafay kenn jaamu yàlla liggéey daal di njàmbaram ak topp ay kilifaam lii rek la si Moustapha Abdou Aziz nekkoon bëri na si réew mi bëri na si dégg bu toll te ku ñëw si bis bi taxaw ci jàkka ji bon liggéey bi dana xam ni àndal ko ci moom ndax wax ko wala ci diggante la nekk dañ ko séntu ci ak terrain tey itam gone la waaye ku am lislaam la ak jullit la ku am ngor la ku am jom la jàpp njàmborom la ku nangoo liggéey lay jëm tax yooyu la war a jural nekkoon lii la sëriñ Cheikh bi léegi woon nañ leen ko jot bi mooy xam ne sëriñ Abdoulaye Sylla yéen daal ba yéen ci gannaawam ak ah mbokk yi mbokk yi mbokk yi ñoo fi yëpp foo leen ko seen mujjëm na ngeen xam ne ci diggante la nekk teewal bis bii bi waa faj aajo sëriñ Bara da nga xam ne mooy borom bis bii mu faj aajo muy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baal a am ñëpp di baal a am ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu dafa sant li nga dégg di ñaan di ñaan dina am ñëpp di xew